ndax ah, waa lii kenn xamu ko ah te da yeewu ndëkk di la të ah mu metti trop ah, nekk ci aar bi aar boo xam te ne ay at yaa ngi ci nekk ah, boo yeewoo boo amee kafe doom loo ko suukaree mu metti metti benn période metti boo xam ne man lii damaa war a bàyyi aar bi sax quoi sonn naa trop ah foofu suba ngoon maa ngi ci texte yi di bind ay texte lu ne maa ngi koy jéem ah lu ne way naa ko dara ah fii kenn dëkk bi kenn dimbali kenn moo ko fi am sa problème da ngay dee rek. da ngay dee rek ba ah, dara da ngay da ngay sonn rek xaw ma ko ah aar boo xamante ni boo demee joué boo paree njox le 1500 wala 2500 nga jaar ci mayga bi jënd sa mburoog mayonnaise boo yeewoo sa yaay laaj la amoo loo ko jox kon aar bi ko war a bàyyi xamatul li lan la ah damaa bind ay texte ba sonn façon way bu ne génne naa ko batterie bu ne joué naa ko lu ne def naa ko ci aar ah man sonn naa waay man damaa war a bàyyi sax aar xool leneen lu ma def parce que musique musique wóorul de musique musique kese wóorul de ah xool sama dàll yi ah yi gëj naa ko suuree ndax aw ma sax lu ma ko suuree xam naa ñoom sax mere nañ ma waaw yow moom lu ma ñaax yaam ko xañ buñ ma woowee ngay planté wu ah crédit sax du mënu ma koo am man damaa war a bàyyi musique quoi man sonn naa trop boo yeewoo doo ndëkki soo ndëkkee doo reer soo reeree yë yëre yu baax sax mënoo ko am topp aar bi rek. bi dafa metti quoi Sénégal kenn xamatul lan la dëkk bi metti na trop trop trop trop trop waaw balaa maa dee ku ne di wax waxi pétrole pétrole pétrole 500000 400000 léegi suñu xaalis pétrole bu fekkee sax mun ñu koo jox 400000 yi ku ku nekk ñu war a jox la barigo quelque barigo nga dem jaayal sa bopp sax au moins sax dëkk bi ku ne mën a ne say problème bopp waaw mais dara fi laay toog jéem a créé beneen son boo xam te ne xëy na bu génnee ma yor si ay millions am benn morceau boo xam te ne maa ngi koy yàmbaa la parce que booy bëgg nañu yàmbaa de booy yi dañ ko bëgg bëgg nañu yàmbaa trop trop trop trop trop texte boobu peut-être bu génnee mun na ma andil ay ay millions